salaamaaleykum Amadou de Fouti waaw dañ leen indil information ci Ousmane Dembélé ba xam dina football match bi war a dox diggante Real ak Barça waaw mais balaa boobu dañuy wax ci kan su suñu international sénégalais bii di Sadio Mané moom nag génn na ba joxe ay kàddu après match bi doxoon diggante Bayern Munich ak PSG def na première réaction muy lan Sadio Mané nee na jamono ji mu toll nii macha allah mu ngi ci forme mu ngi ci plein forme mu ngi ci 100 pour cent ah te it pare na pour euh, football jàppale Bayern bu baax a baax kon nag pare na pour titulaire d'après carte yi nga xam ne jot na ko génnee nag boo xoolee jamono yëpp ci banc bi lañ koy teg ba deuxième mi normal nag ci blessure la jóge mais actuellement avec le temps gëm nañu dina nekkaat ci forme mais moom nee na pare na cent pour cent ngir war a mën a football. jàppale Bayern Munich bu baax a baax gis nañ ko démb mën naa ni réaction yi xaw naa jukk Leroy Sané li muy teebal dafa bëri du paas sax waxuma la ak Sadio Mané mais jour Bayern nii sax du leen paas Leroy Sané waaw moom moom footballam dafa dafa dafa waxuma la égoïste sax mais dépassé na loolu quoi beneen niveau la nekk moo tax jamono ji ci wàllu football dafa commencé perdre mémoire quoi niveau bañ ko gisoon gisatuñ ko fa mooy loolu te loolu koy tardel du ko def meilleur euh, joueur quoi ci bi waaye boo nag mu bàyyi ci xel mu ngi noonee ma leen xaar yi ba xam gis ngeen ne Sadio war naa mën a titulaire actuellement ak Bayern ou pas ngeen bindal ma ko ci euh, commentaire yi lu ngeen ci wax rek ñu waxtaanee ko euh, bu loolu weesoo nag dañuy dugg ci kaa kan Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé nag moom euh, xam nga moom dafa doon annoncé que ni moom bébétam mooy que mu football match Athletic Bilbao bu jógee foofu objectif bi gën a mag mooy contre. Real Madrid classico bi da koo bëgg a football waaw da koo bëgg a football 19 mars mu ne bu ko médecin yi joxe aval finalement médecin yi nag ne ko euh, contre Bilbao moom c'est c'est c'est c'est euh, nii moom foofu moom du ko football waaye it contre Real ñu ngi sikki saaka ba xam dina football ou pas finalement nag mën naa ni tey ji la sax fi génn di leeral que ni bu sañoon Ousmane Dembélé contre Real de di sax du ko football nee na bu sañoon day jël temps jéema ba gën a wér cent pour cent malgré wér na mais dafa bañ a jël risque day bañ mu gaañu waat carrément looloo waraloon Saviné contre Real de Madrid Ousmane Dembélé match boobu gëmul ko euh, mu football quoi d'accord ci quoi ma leen xaar mu football ko mu football nag dañuy bañ a jër risque ah, mu doon loo xam ne nii Xavi mu ngi leeral que ni ah, nee na euh, mën nañ profité waale nag bu classico bi jàllee dañuy jublu directement ci trêve internationale maanaam joueur yi dañuy dem seen équipe nationale foofu dina maximum de temps pour mën mën a euh, noppalu gérer waat wér gu yaramam bu ko defee bu gars yi ñëwaatee rek day ne ci forme meilleur niveau am bu ko defee ay blessure ak yooyu dootu ko dootu ko sonalati loolu tamit neex naa dégg ba xamit loolu d'accord ngeen ci ou pas ñu waxtaanee ko ah, yéen neen la les catalans merengue yi tamit mu ngi noonee daal xaw ma nag. nan ngeen gisee dossier Ousmane Dembélé bi. waaw pour ñi may laaj nag Cristiano Ronaldo moomee euh, joueur bu mag boobu ban problème la am ak jëmm jooje ngeen di gis noonu ñu naan ko Mateo Laos doon arbitre dooy faral di arbitre fële Liga espagnol mën naa ni ñoom nag amuñu benn problème jafe-jafe ci kay lenn la mooy euh, Cristiano Ronaldo këlëbam ba mu nekk fële ci Al Nasr waaw euh, championnat Arabie Saoudite Pro League Saoudite bi Al Nasr dafa am match ak seen club rival biñ naan Al ci match boobee nag dañoo dis ne ne Matteo Laos moomee moo war a arbitré match bi ci noonee nag supporteeru Al Ittihad bi ñoomee ñoo lànk ba tëdd ci suuf ne kookee du nangu mu arbitré match boobee waaw li waral nag ñoom ñu lànk bañ lenn rek la mooy que ñoom nee nañ dañoo jàpp ne ne euh, Cristiano Ronaldo moomee mook Matteo Laos ay xarit lan waaw duñ ko wane ci biir terrain bi waaye buñ génne ay xarit lan te it sax en général ci terrain bi Matteo Laos moom day sàccal Cristiano Ronaldo match yi nga xam ne jot na ko arbitre ci ay penalty ak ñoom seen waaw loolu la supporteurs yooyu génn wax moo tax it ñu lànk ne Ronaldo al club mi di Al Nasr ak Ittihad moomee Mateos amul droit arbitré ko ñoom loolu lañ génn wax ma leen xaar ci commentaire yi nan ngeen gisee kàddu yooyu ba xam d'accord ngeen ko ou pas loolu daal la ñooñee génn xalab ko Euh, jamono ji euh, le jour bi nga xam ne actuellement il fait partie des meilleurs joueurs ci histoire football mondial moo ko Lionel Messi mais ñooñ daal xalab nañ ko ba jiñ ko ni ah moom ak Matteo Loss moom ay xaral lan te ñoom du nangu muy arbitre match boobee bu loolu weesoo gars yi euh, ki ñu naan si man moom nag ba mu gañee dafa commencé takk rajo moom it ngaa ah, gëm na boppam ah, vraiment moom génn na ba ne match bi aller bi. ak retour beeg yëpp boo boolee lépp day firndeel que ni ñoom ñoo mën ki naan Paris Saint-Germain naan ku mën sa morom duma loolu la leen def dañ leen a mën dóor leen dóor yi metti tàllal leen xooli leneen di xaar quart de finale bi kan lañ war a am ngir mën a jàmmaarloog ñoom ngir wëyal dem ca final boobee. ah mu ngi noonu ne yéene naa ko nag suñu international sénégalais bii di Sadio Mané mais bonne chance à eux. bonne chance à su Mané suñu international sénégalais bu loolu weesoo gars yi ba tey sama chaîne YouTube ñi nga xam ne euh, demaguñ fa maa ngi leen ñaan ngeen dem fa pour ngeen dem fa nag lu yomb la comme bu ngeen duggee sama sama compte TikTok bi nii rek di ngeen gis foofu benn benn benn forme boo xam ne nii forme YouTube la waaw logo bi boo leen ko bësee da leen yóbbu directement foofee ci chaîne bi ngeen bës fi ñu naan abonné bu ngeen ko bësee. activer cloche bu ko defee benn suñu vidéo foofee dootu leen raw mais surtout foofu bu ngeen fa demee ngeen seetaan vidéo yi di liker di commenter que partager loolu ngeen ñu mën a soutenir ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def di leen jox information yi à temps à chaque fois di def suñu kéem kàttan pour ngeen jot ci ah dara bañ leen a raw kon nag daw leen gaaw ngeen soutenir ñu foofee. Manchester United de la leen Liverpool yanoon keroog moom la ñu mer ba nar koo sëpp ki ñu naan euh, Betis Séville bu Youssouf Sabaly tey moom affaire yi weex na xàtti ci ñoom fële ci Old Trafford waaw ah, Manchester United dóor na leen dóor yu metti waaw ah, 4 buts à 1 lañ leen lonkal mais biir match bi boo gisee ni Manchester United la ñuy ci bal bëri na bari na trop mënoon ngeen a dugal tey ba 8 bi waaw occasion yi ngeen am tey moom défense su Séville Betis Séville moom <laughs> danoon seen comme pas possible ngeen baal ma danoon seen de comme euh, peñe basket lu ñëw romb waaw boo xoolee sax seen njool mi. njoolu palande bi tey dugal na bay jooy ndeysaan ba mu ba mu ñëwee Manchester United ba léegi muy doog a dugal fële ca Old Trafford moom nag jour bu essentiel la bëri luy bii joueur de couloir yeeg militaire coupe bi waaye moom doon na joueur boo xam ne nii dafa am solo ci équipe Manchester United nag dafay sonal défense dafay créer espace pour jour de couloir yi mën di percer di dugal loolu waral Rashford jamono ji ay bureau bi bëri. ay biir Bruno Fernandes loolu la ñuy Fernandes looloo tax ñuy dugal jëmm joojee mooy jaayante loolu di sonal défense bi di créer espace moom rek ñaari nit a koy marqué waaw mu ngi noonee bu téye bar rek espace am na mu ngi noonee kon nag loola waral nag Eric nag maintenir ko man malgré mbokk Hollandem la waaye gëm ko mais mu ngi jàppale Manchester United bu baax a baax tey ji nag récompense nañ ko bii boo xam ne nii vraiment dafa daw bay jooy ndeysaan dama ko mujjee sax faf mooy loolu yërëm mu ngi noonee daal waaye mu ngi ay milliards am man mooy yërëm ku yore milliards maa ngi nii rek mais bu loolu weesoo tamit sévi bu Pape Alassane Gueye malgré moom bokkul ci Ligue Europa bi bokkul ci liste joueurs yi football Ligue Europa ñoom nag ñoo dóor tey Fenerbahçe ci 2 bi à 0 waaw ci match bu xaw a metti waaye sévi finalement moom dafa miin Europa League waaw ndax kiñ naa na euh, Fenerbahçe dóor ko 2 bi à 0 fële ci dëkkam yamaatuñu foofu yeneen match yi amaat. AS Rome moom it jàpp ki ñu naan euh, Real Sociedad club espagnol boobee moom it lonkal ko 2 bi à 0 fële ci dëkkam moom it AS Rome mu ngi noonee yamaatuñu foofu villa Villarreal nag bu Nicolas Jackson alhamdulilah defaat na retouram Villarreal kii naan Nicolas Jackson après blessure am bu xaw na bi ko empêché woon mu dem fële ca euh, club anglais boobee di Bournemouth finalement nag. football na tey Villarreal dafa mujjee nul un but partout mook Anderlecht euh, bokki ñu naan euh, musaa Ndiaye musaa Ndiaye mi nga xam ne nekkoon na FC Barcelone actuellement latéral gauche di football ak central ñoom dañoo mujjee nul un but partout Youssouf Sabaly nag tey joué na waaye tey sonnoon na ci falaam vraiment malgré i mu ngi doon jéem a wane boppam mais c'était un peu difficile équipe dañoo inférieur oon tey ci kaw ki ñu naan euh, ci ginnaaw suufu ginnaaw Manchester United mu ngi noonee ngeen comprendre ma damaa xaw a tas tey damaa xaw a mooy waral. mooy loolu mu daal jaamu